amul ku fay sol tiset politicien amul ku fay sol casquette politicien te privilège bu dul privilège du dëmm dañ koy am xale bu jigéen boo nekkee en état rek sa huitième mois balaa ngay am doom neuvième mois état da lay verser neuf cent euros muy téeméeri junni ñun ba ñu juddoo ba tey état mosuñu verser ñeenti téeméer loolu kañ la am même bu dul amuñu vingt mille ñu am sax même bu dee juróomi téeméer maa ngi gis fan am na commune Euh, yu commencé naan euh, ku nekk en état dinañ la jël en charge loolu lu yàggoon la xaalis bi mu ngi fi. xaalis bi mu ngi fii gis naa benn commune bu ko def la Grand Dakar xaw ma zone B côté boobu yëg naa information boobu lu am solo la chaque maire ci koñ wala état xale bu jigéen bu nekk en état nañ la jël en charge muy sa vaccin muy sa xale bi ba mu juddu nañ ko fayal ban njëriñ kon léegi lañu nguur amal quoi nguur ban njëriñ la ñu amal politique 24 heures sur 24 mbelelele des débats gauche droite c'est-à-dire ñun ñoo sonn si c'est-à-dire bi il faut ñu taxaw ndaw ñi buñ ko defut nag li leen di dóori ëllëg mu ngi ñëw amul ku siy rëcc A ba Z nag qu'on se dise la vérité munu ñu toog suñu papa yi xeex guerre jeng-jeng fu xaw ma jeng-jeng fu suñu papa yi dañ see xeex suñu baay yi danoo xeex pour Sénégal am indépendance boobu ñoom ñii ñëpp xamuñu woon tey dina nekk njiit ñu jox la nga nekk benn ministre ministre de la jeunesse ñu ñëw assemblée nationale voté budget cinquante milliards ñu toog tumuranke bi gën a dugg jeunesse bi kon milliards yooyu ñu jox ministre bi fu koy dugal xanaa moom 4-4 dañ koy jëndal ak carburant ak dem Saly des réunions dem Paris des réunions dem Norvège des réunions réunions yu dul jeex des conférences des yu kenn xamul dafa jeex quoi ñun ba ñu juddoo ba léegi on entend des waxu ay réunion ay ay ay ay xaw ma kenn xamul quoi seen yooyu quoi dafa doy quoi vraiment dafa doy politique de liggéey la ñu bëgg politique de def léegi gis léegi politique de def léegi gis léegi ndaw ñi sonn nañu Sénégal ndaw yi li ñuy fayeku jaaduwut ay ndaw nekk si koñ di bale ay tëli ay mairie ba weer dee nga fay ko benn quarante mille. ñu respecté sénégalais yi mënuñu toog dëkk bu am gaz bientôt am pétrole ñu am zircon am fer am suuf am gàncax am lépp dëkk boobu ndaw ñi dañoo xëy retraité tey da ngay gis étudiant jàng université Cheikh Anta Diop ba am diplôme romb si koñ yi di jaay café Touba tey da ngay gis caisse de PMI nit di fa jaay fekk am na thèse tey da ngay gis Orange Money ñi fay jaay koo si wax mu ne la am naa bac plus sept mais c'est quoi le problème tey nga gis ay France ak ay yeneen dëkk amuñu zircon amuñu gaz amuñu marbre amuñu franc te ñooñu chaque weer bu dee ñu ngi toppatoo seeni doom xale bu judd ba ngay ami 16 ans état moo la jël en charge chaque weer ñu ñu ñu ñu jox la xaalis. nowel buy ñëw xale bu ne ñu jox la cadeau école buy ubbi benn parent du jaxle ndax état day jël kayeeg big ak saag ak fourniture jël wala xaalis ne la jënd ji li yére gis nañ ko dañ ci teg suñu bët quoi. mais ñun tey école buy ubbi suñu doom yi ñun dañoo sonn dañoo tumuranke dañuy dem euh, mu ngi noonu c'est ça encore donc ok ok qu'on se dise la vérité xam naa ne li bëgg wax yëpp li ñu bëgg wax yëpp xejul léegi comme ni ma koy waxee rek gis ngeen ni may waxee ni maa ngi tàng jër dalloogu ma même bu dul li ma dund fee ok c'est bon li ma dund fee dara méttiwu ma fa fee ma nekkoon fee si kaso bi moom aljana laa dund happiness dund nice yeewu garde yi dañ ma sax yéem ñu ne mais Kaliphone ñun xamuñu woon yow di nga tëdd nii kaso ma ne ko mais ñi fi nekk yëpp c'est des banlieusards man deret bi deretu banlieusard la gis ngeen deretu banlieusard ngay wax muy ñaq nii di génn lii du deretu lekkkatu riba lii du deretu doomu ministre lii du deretu doomu directeur nga xam ne xëyuñu ñu seen bàyyi dañuy tëb rek di leen jox ñuy ngóllal la la li Dubaï ak Turquie ak fu ne ñu koy dugg si àdduna dama man Sénégal ma gënal looy gis waaw may jéggaluwaat nag li ma nekk si dëj sax a tax dama ñàkk sama mag bu jigéen mu tiis ma lool metti ma lool moo tax wax ji sax mënut bëri naa ni dinaa leen jox rendez-vous ce soir à vingt ñu gën yaatal ba ñu noppalu benn cinq jours ñu continuer waat sunu ay live dëgg te yàlla tax kuy bëgg Kaliphone si lii nga koy bëgg kuy bañ Kaliphone si lii nga koy bañ man li jëntuwuma nit bu may bëgg ndax Kaliphone kaay waxal ma kuy xaar loolu si Kaliphone doo ko am man ku ma xam dëgg xëy na nag ñu ma xamul ñooy toog way kalifon dañ kaa fay xaalis moo tax muy saaga li ma doon saaga Sonko wax naa leen ko amul mbindeef bu ma fay cent saagal Sonko yéen waa nitu Ousmane Sonko yéen a ma saaga sama ndey a ngi tëdd ci àllaaxira ma delloo ko fu muy saf sàpp gerde day saf mondial loolu wax naa leen ko depuis au début sama ndey moo ma gën a looy gis ci kaw suuf waaw man loolu dam leen ko wax amul mbindeef bu sañ taxaw ne Kaliphone un million ngi wala deux million saagal ma sonk ku ko wax dootu ko dolli man nit yabeewu ma noonu sama kanam bi binduma fi ñàkk fayda am fulla laa si bind nit yabeewu ma loolu waaye nag yéen waa o doomu Ousmane Sonko yi waa kër yolom gañu xam ngeen bu baax lim leen wax dama joteeg yéen kuul sama kuul ngeen jëli sama ndey ca àllaaxira posté ko si réseaux sociaux yi di saaga du matin au soir ma it pour ma dóor fuy métti fi ngeen koy sentiré ma jëli ji yaay sonku lu ma ci góobe gàkku loolu moo andi woon bu ma si nit meree sa problème la bu ma si nit bëggee it bismillah man xooluma luy neex nit parce que dépense su nit joxuma ko pour ma dundal sama bopp bay dundal sama njaboot dina gën a yaatu may jéggaluwaat di remercier nag di remercier bu baax euh, sister Françoise Hélène Gaye barki démb rek ndeysaan wax nañ téléphone wax nañu appen peine vingt minutes woo naa wax téléphone wax nañu Euh, Fatima Ndiaye Fouta Tampi moom sama sister aw ma fayam aw ma fayam mention spéciale à toi gis naa ko depuis gendarmerie taxaw na ma wax dëgg fa yàlla Ba Jaxate Anita Diop moom it gis naa publication vraiment nga may soutenir ak yeneen sénégalais yi nga xam ne du ñu sax ay apériste dañu gis Kaliphone rek bëgg ko te yàlla tax euh, ma leen di jaajëfal euh, di jaajëfal it waa gendarmerie nationale wax dëgg fa yàlla muy waa brigade bu Wakaam parce que yéen wuñ ma andi déedéet convocation lañ may jox maa ngi dox wuyu ji parfois ñu woo ma téléphone dama ñëwal maa ngi dem wu ji même jour bañ may defeere sama waa kër chaque jour dama doon ànd ak ñoom jour bañ ma ne jeudi lañ la war a defeere yoog femme bi dama yeewu 7 boobu sama waa kër kenn yeewut ma bàyyi fi sama portable ak sama bagage yépp comme dañ may defeere ma yóbbu rek benn téléphone mooy bii ma dem ba foofu commandant bi ne ma femme bi ñëwagul ma woo sama avocat mu ne ma ana femme bi commandant bi ne ah ñëwagul ma ne ko bu ñëwee bu ñëwul damay dem bu ma demee ñu ne ma taral dépôt ma tëddi parce que casso yi bañ koy tabax defaluñ ko ginaar yi defaluñ ko ginaar yi ma dem ma ñëw ñuy ngandal affaire bi xam nga bëgg collé motif bi ay viol alhamdulilahi rabbil alamin ñëpp xam nañ ne viol amut femme bi ñëpp gis nañu jouru tribunal lundi ba ñëwut avocat am taxaw devant juge bi ne monsieur le juge sama client ñëwul tey lundi mais maa la ko naan jeudi je te promets dina ñëw jeudi ñëwut mu ñëw ne way elle est à principal cicatrice ak yi kenn xamut way ñu commencé ne ñu defaat affaire bi mu naan léegi na juge bi ne xaw ma lan incompétent yu kenn xamul c'est-à-dire waa jooju moom buzz la bëggoon quoi c'est-à-dire waa jooju buzz la bëggoon ko avocat bi buzz la bëggoon parce que kenn xamu ko te man du amee si man buzz wax dëgg fa yàlla aw ma jotam may remercier ñëpp nag sama avocat Euh, ma koy remercier ah muy maître Soumaré ak maître Daaf ma leen di remercier di remercier waat sama famille euh, di remercier tamit waa administration pénitentiaire wax dëgg fa yàlla depuis ñu ma àndee si cave bi tribunal ba ma ñëwee rek gis nañ ma Californie ça waxtaan ak man ñu dugal ma si cave bi ba bañ may dugal si oto bi di yóbbu sébi waxtaan ma ak ñoom bañ ma àndee ba sebi foofu chef yi nekk foofu chef de cour beeg waa greffe jigéen yi nekk foofu waa social amul amul ku ma si won kanam Kaliphone tey nga xam ndeysaan dañ ma gis bëggal ma seen bopp rawatina ñii ma fekk si kaso bi ndeysaan Cheikh Omar Diagne nee naa ko duma ko mës a fàtte si kaw suuf Cheikh Omar Diagne euh, ma lay sant di la gërëm di ñaan sunu borom yàlla na la borom bi génnee foofu euh, fii nga nekk man xam naa euh, sunu borom rek nga gëm moo tax nga toog foofu di nangu ndogalu borom bi te yàgg-yàgg di nga génn mosoo dégg tëj nañu kii à vie si ñàkk fayda yàgg-yàgg di nga génn incha allah rabbi yi frère euh, euh, Cheikh Omar Diagne euh, bu neexee suñu borom dam la koy ñaanal nitu yàlla nga te incha allah rabbi yi di nga génn yàgg bawul suuf dinañu gis incha allah rabbi yi may kontaan si ñëpp ku bég yàlla na yàlla bég ku bégul it sa problème la man wóoruma luy neex nit may remercier waat sama famille bu baax a baax a baax gis naa ni nuñ ma taxawoo sama famille taxawu nañ ma suba taxaw ma guddi taxaw ma ngoon ah waaw jërë ngeen jëf bëgg ñëpp daal aw ma seen fay ah gars yi di woote yëpp si rajo bi ñoom baa jaxate émission yi ah yenn journalistes yi euh, di wax dëgg te yàlla tax sant naa leen gërëm naa leen yenn journalistes yi toog tamit di di di di di di jéem a yàq Kaliphone dégg naa sax si émission yi am ñu naan damaa saaga waa Walfadjri euh, s'il vous di naan dama saaga waawal waa Walfadjri nañu génne rek benn vidéo fu mu mës a saaga waa Walfadjri duñ ko génne toog naan presse corrompue loolu du saaga parce que dañuy gis yenn émission yi di am foofu tamit nañu wante dëgg daa mel ni Sonko moom télé boobu fii buñ fi nekkee bu Macky sàll liggéeyul dañuy taxaw ne liggéeyul bu Sonko liggéeyul ñu taxaw ne liggéeyul nañu Sénégal ñor mais mënuñu toog du matin au soir lu ñu gis lu baax ci Sénégal duñ ko wax lu bon li rek la ñuy xool moo tax ma leen wax yenn télé corrompue mais Californie kenn du génnee vidéo ne mës naa saaga journaliste parce que man sama sama sama sama xeex du journaliste yi man sama xeex du journaliste yi man sama xeex mooy luy baaxal Sénégal sama doom bi am 11 ans toog ëllëg bu màgg jee na dund si conditions yu baax ba buy ami jëkkër bay ami doom doomam mi samay sët fekk conditions yu baax parce que sama classe gi yëpp moom ñu ngi ba 40 ans moom sunu àdduna yàqu na ndax nguur yi fi jaaroon yëpp lépp lu baaxoon ci dëkk bi ñii jaay nañu suuf yi jaay nañu kër yi ainsi de suite ñun moom yàqu yàqule na ñun moom c'est foutu pour nous mais xeex bi pour suñuy futur suñuy euh, sët yi di ñëw suñuy jarbaat suñuy yéen a ma gën a xam quoi dinañ ko gën a yaatal Californie euh, ambassadeur kër forom njaayloo euh, moom it ndeysaan depuis Paris gis naa liggéey bu am solo bi nga def mais remercier ñëpp ba ci ndeysaan am na colonel bu kii Bokande ñëw na barki démb prison ba moom it xam naa ni dinañ ko yaatal ma koy sant di ko gërëm ba mu nekk prison bi tamit gis nañu euh, juge yi fa doon ñëw muy jàbbeeg yooyu mooy juge application de peine parce que gars dañ doon toog naan juge yi souvent bu ñu tëjee nit gars yi duñ fa ñëw mais wax dëgg fa yàlla un mois bu fa def gis naa ñeent yoon autorité yi dafa ñëw gis naa juge dafa ñëw yenn procureur yi gis naa euh, ba si boo ko àndee barki démb la fa mujj ba mu dugg see rek ma gis ne eh ma ne ko waaw ma ne ko yow la kan mu def nii ma gis ñu bind bokkaande mu ne moom la bokkaande ma ne koy damay dégg sa tur quoi vraiment sant leen gërëm leen tamit di sant état euh, si benn côté bi di wax ne que prison nu ko gars yi di déggee métti na métti na ah man de fi ma jugee moom méttiwul day mel ni internat rek nga yóbbu sa doom ci daara condition yu baax xëy na 100 mètres na kon dañuy ñaan état ni mu defaree prison bu sëbi xotaan mu tabax yeneen prison yi mel noonu parce que wax dëgg fa yàlla foofu état war nañ ko féliciter parce que tey ba bokkaande ñëwee sax loolu laa doon wax kanamu prisonnier yi euh, suñu njaboot yi bu ñu déggee nit mu ngi kaso euh, da ngay gis ñuy jooy ñuy sëngeemu mais bu ñu leen nee kaso bi moom alhamdulilahi rabbil alamin da ngay gis sa jabar bu xëyee sax day liggéey sama bu xëyee liggéey ñun ñoo leen war a rassuré Sébi Xotaan moom euh, Ahmed Aydara jaar na fa chambre 2 la nekkoon moom foofu la kii nekk actuellement Cheikh Omar Diagne yeneen nit Diagne ne fi ñoom Guy Marius Sagna du ñu weddi li wax nit ku nekk ak sa lal mat la rësool chambre buy am quatre personnes Cheikh Omar Diagne chambre bu nekk quatre personnes la am quatre lal ku nekk ak sa lal am ñaari ventilateur am toilette ci biir am lépp loolu dañ ciy remercier état chambre man bi ma nekkoon dix huit nit ñoo fa nekkoon dix huit lal mais nii nii y avait quatre personnes yu ñu dolli mais am na dix huit lal ñeneen ñi nag tëdduñ si lal mais tegal nañ leen ay matelas du mer gàddu nag mais ay matla yu bële yooyu si dañuy tëdd te karo la gars yi def ay lal mooy lal yooyu ngeen di gis yu nekk Paris rek nit tëdd nii yeneen nit tëdd si kaw yooyu lañ fa def moom wax dëgg fa yàlla ak ñaari ventilateur euh, fu ñuy am 18 personnes aussi y a deux am ñaari chasse eau da ngay sangu suba bi dañuy andi ndekki mburu ku nekk ak sa liibaru mburu añ midi et demi añ yi day fekk mu dugg démb rek ceebu yàpp la wax dëgg fa yàlla parfois ceebu yàpp parfois yaasa parfois maafe guddi bi parfois cere par dimanche kaay togg mu xam sa macha allah lekk yi nit ñi dañuy lekk ba tuuri mbalit loolu moom fale ñu ñu ñu ñu ñu ñu wax ko tamit pour état nu mu def ba sëbi ñu nekk si ajana nañ ko defee noonu yeneen prison yi nga xam ne deew ma fa wax dëgg fa yàlla ñooñu tamit dundu ajana li may wax nii nag ñoom Guy Marius Sagna jaar nañ fa gis nu image yi xëy na ñoom dinañ ko wax ji ëllëg ci biir donc dañuy ñaan rek ñu gën a taxawaat prisonniers yi gën leen a jàppale wax dëgg fa yàlla xam ne kaso jombul kenn te ay sénégalais fa nekk te ay ndaw ñoo fa ëpp encore une fois ñu jàppale leen